résolution finale bi bu pare ba ñu jàng ko ba ñu adopté ko pour ñun jeex na ñu ngi nekk ak yow nekk ak yow nekk ak yow ba bési élection bi ma dina dénk nag AFP gi man mag la bëggoon naa jóg dem fee ñu ne ma déedéet bëggoon naa jóg dem buñ ma sukkandee rek danaa yëg foofu waaye ñu ne ma toogal. tooloo moo waral toog bii mais amul benn lu ma wàññi ci sama respect bi am pour yéen ak gërëm leen sopp leen bëgg leen ngeen nekk sama ndam nekk sama fierté bu yàlla defee élection yi passé AFP dana def incha allah son congre après les élections kërëgee buñ ko fekkee jàmm AIP dina am secrétaire général bu bees ndax yëf yi mag du ko antanati waaye nee naa maa ngi noy du ma bàyyi AFP feeg maa ngi noy monsieur le premier ministre je serai membre de ce parti il nouvelle direction après le congrès au contraire y aura une nouvelle direction maa lay dénk AFP bii am na lu bari lu mu daj loo xam ne neexul xol neexul xel loolu laa bëgg mu bu la yàlla yéegalee bu la yàlla yéegalee dénk naa la AFP bu keroogee maa ngi lay ñaan nga jox AFP gëddam jox ko cëram